Li nak man la concerné yi bis bu ñu député ñu hémicycle législature Nous ñu une grande commission parlementaire commission d'enquête parce que nous, il est temps que nous ministre de l'économie et des finances Amadou Ba ko mu yor daañu woo Abdoulaye Sylla nga xam dafa jege président jege première dame laaj ko aussi en si de temps ak ay déboire am ni mu bëree woon en si de temps naka la def tey jii ba mu mun a am aise bii mu am ba lëmbee suñu koomu réew ñu bàyyi ko di ko seetaan ñu wax ne am na ay nitu yoon ak ay nit ñu mag ci république bi ñu ko làq loolu des koy seet te laaj bi ñu ko nar a njëkk laaj mooy naka la def ba compagnie turque yooyu SHS AHS naka la def ñoom tey jii ba mun a dem ci luubal bu rëy bii ñuy waajal au dos sur le dos li ci topp ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb defar Sénégal. kenn ku nekk mu ngi yëngu ci social à sa ñeneen yi social bi ñuy yëngu mooy fexe jox xale yi xam-xam ñu nekk ay daw mais di fexe di wesaare seeni xam-xam ci ndaw yi pour di leen former ñoom seega ñi bokk nañ ci ñoom maas mi bokk nañ ci ak ñeneen aussi mu nekk ci biir mouvement bi tunkara aussi ci loolu lay dox suba ak ngoon mooy nit fexe ba am xam-xam ñooñu dañu taxaw tey jii ngir créer cette révolution dans la démocratie ce dimanche 30 juillet 2017 mbokk yi daw ci mbedd bi amna na yuuxu mi fi bi pendant la campagne mais dimanche yuuxu amul daw ci mbedd bi amul yow la ci bir man gàcce yow ak urne bi yow la ak sa conscience nan nga war a def ndax danga nar a wooteel ñi nga xamante ne dañu bëgg semer la corruption dans ce pays wala ndax danga nar a woote pour dagg loolu mu bañ a xewati ci réew mi lii mooy la grande équation bu ñu war a posé wu